daan dem si kaw daan dem si kaw. merci. sant yàlla bu baax a baax. waaw sant sëñ Touba rek bëgg sëñ Fallou. waaw sant sëñ Touba bëgg sëñ Fallou rek. façon bëre bi mu dafa bett ñu bari nekkee xale bi mën na li mën na lu ko raw xaale ba si kanam rek léegi gis raw loolu. mais dër bi dër bi pikin pikin parcelle. non bu fekkee du dër bi ndax ñoom suñu suñuy taalibe ñooy sëriñ yi. ñoo xam nañ loolu sax. dafa nekkoon boo xamante ne. Moussa Diouf moo fa daax a bëre man maa ko jàng maa ko xeli as tuut jox ko sama doom yàlla ko yàlla xale àjjana su foofu si kawam. kon looloo tax boo dajee ñoom muy métti. non kii laa dajee sama xaw am yërmande kii comprendre ko Moussa Diouf la te Moussa Diouf dama ko bëgg sama xol loolu moo tax def ma dara gisoo lamb maa ah, mu doon ak keneen gësam naa bu yàng. kon combat bi leer na ndax dafa nekkoon 4-4 parce que Pikine daan na yóbbu na ci 5-4. non ñii suñuy ba déwén ba déwén nañu muñ ba déwén. Modou Lo Ama Baldé. ba déwén rek. <laughs>